naa mais comme ku nekk yaa ci sa site rek ma nuyu ma nuyu Sénégal nuyu monde entier nuyu ñëpp ñuy seetaan di nuy waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi waa kër Cheikh Mohamed Fall fi ma bokk di ziar ñëpp di nuyu waa Pikine di nuyu ñëpp waa Touba waa Daaru Rahman di nuyu ñëpp sama mbokk sama am di jàmm yi ma waa kër maam Cheikh man maa ngi bëggee ñëpp di ziar ñëpp waaw comme ni ñuy wax rek euh, combat bi Pape Thialis ko démarché boo gisee taxawal ko yomb mooy waxtaan bi yàggul parce que ñun ay xale lañ ci làmbkat waaye xam naa ni moom xaw na xam suñu valeur ci làmb et puis lu ñu soxla jox nañu ko sant nañ yàlla bu baax comprendre nga ñu ñëw war a bëreeg Tapha Tine staff bi bëgg nañ Tapha parce que Tapha champion la def na lépp ci làmb mais comme li ma la wax rek man maa bëgg a bëri ak Tapha parce que bu may commencé làmb dama daama di wax ni pour ma doon dara il faut que ma daan champion yëpp ci sama gëm-gëmu làmb bu ndaw dama jàpp ne pour ma doon dara ci làmb wala bu ñu tuddee laam tudd sama tur donc foo ma daan champion yëpp loolu laa jàpp yombul nag liggéey lañu ay xare lañu waaye jàpp nañ champion yooyu Tapha ci la bokk war nañu bëri moom suñu borom moo yor ndam di ko maye ñu ngi koy ñaan mu may ñu ko ci barke Cheikh Nassir Salbu. léegi biir présentation bi dégg nañ ko mu ne soo bëree wax rek loolu neex loolu wax ko dafa teel. waa loolu waxam la mais wax ko dafa teel. lamb bi ñoko sék mak mom comme lima wax rek ñol tabbi mom mo gën gëssam ñol tabbi mo gën gëssam lool dafa jeextaak comprendre nga taba champion ra defuma ci lamb lu mu deful wala lu mu def sax man defuma ko xale laa dama ñew pour bëreeg mom pour wane ni bo ñaa champion bu ndaw la ci mom après ma dem xol leneen. Hmm. jërëjëf boy yow deuxième question bi Malick. Hmm. da ngay da ngay tek sa. ci nu fonde mm-hmm. ñëppay naan mm-hmm. day naan moom mi ngi fi indaal nañ ko bu ko naanul rek incha allah bu ñu jàppee dal ak charge ñu indil ko kaasam bu soobee yàlla comme noonu la deme daa am lu ma leeral nag comme presse bi yëpp ñu ngi fi ma bëgg leen wax ni rek euh, man xale laa dama ne ci làmb donc il faut que ñu bàyyi jël suma carrière fise ko ci benn département wala ci benn nit dama nekk xaale war a bëreeg ñoom ñëpp su ma paree ci tafaa dama war a bëreeg beneen champion suñu borom bu ñu mayee ndam ñu ngi koy ñaan suñu borom waa Pikine rek laa fi bàyyi kon donc nag il faut mu leer ci presse bi ñu bañ a jàpp ne man li may sonn ci làmb wala di ko ñafe ci làmb pour benn mbër la wala pour benn gox la géej waaye bëre naa fa ay champion yu bari amul lu ma faral defar def naa fa lu ma fay def ba pare donc loolu moo gën a tax ma préféré pour bëre ak feneen dama war a bëre yeneen champion waaw bu ñoree rek tab bi noonu la demee maa ngi jaar ñëpp nag di bëggee ñëpp loolu il faut ma leeral ko fii pour ñu xam ne boo ñaan ñafewul carrière am ba mu commencé 2010 ba léegi pour benn mbër wala pour benn gox dama war a bëre gaa yi fi nekk yëpp laale ak ñëpp comme ñoo ñëpp ay champion maa ngi bëggee ñëpp di jaar ñëpp jaajëf